Ah, joyeux anniversaire. ñii dañ ñëw loolu def mais nañ xool leen nañ créé ñii joyeux anniversaire bi ñëw dañ xool leen nañ lu baax euh, lu neex. <laughs> déedéet déet bi nga créé. Euh, mais non dañ koy ñaanal bu baax a baax ñu koy ñaanal longue vie santé prospérité beaucoup d'argent nga dund ba bébé grâce di la jëndal ay oto ay villa nga fekk njëriñam ñu bañ a séddale dara sa ginnaaw yow moom mënuñoo ñàkk a barkeelu ci baat bu neex bi xanaa da koy yëkkatil benn eeru Fatou Laobé rek mu daal di am dara. jodi waate eh. merci ouya merci beaucoup alors euh, on va appeler on va appeler un jeune monsieur très talentueux euh, chez nous les chrétiens catholiques il fait partie de, des artistes phares PNJ, Eva, à l'ensemble des chrétiens, ils sont en temps de carême. Raison pour laquelle on l'a appelé aujourd'hui aussi pour communier avec nous. Euh, il va chanter, euh, bien sûr, pour Carole, Valérie. Il s'appelle Kofi. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. kofi olomide bonsoir à tous alors Eva Carole je te souhaite mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité. Voilà, que le Seigneur soit au centre de toutes tes activités et que ta maison ne manque de rien. Que toute âme forgée contre... Lebzo ayca jege si leen Elena Carole Eva les jumelles vous allez chanter pour euh, Eva vous savez chanter les jumelles c'est qui elle c'est toi Ba euh, ani toxkati ndëboo yi fii kan moo yore aliment ana ana ñu. voilà ko may ngi nii briquet may ngi leen ma briquet boobu. ok alors avant avant de chanter pour euh, Carole. Tara, tara, tara. Les jumelles d'abord vont démarrer. On a des, on a des petites jumelles. Hein? Elles vont chanter d'abord pour euh, Carole. Les jumelles, mettez-vous là-bas, s'il vous plaît. Yasmina ana les jumelles yi voilà. pour les jumelles. voilà. alors on a beaucoup d'invités surprises hein? donc on va démarrer avec euh, les jumelles et leurs sœurs. il y a Abdou Aziz il est Abdou Aziz il est là. Je suis là. sont les gens. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Eva, joyeux anniversaire. waaw waaw. bés bu dellu si moo neex. bés bu dellu si moo neex. bis bu dellu si moo neex Eva bis si moo neex ay waay happy birthday to you waaw waaw happy birthday to you aw la loolu waay happy birthday to you Yeah.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

Birds without a sing, mom never been tired. Birds without a sing, mom never. Merci. Merci. On applaudit euh, Paulette, mention spéciale. On On va appeler un monsieur qui petit mot il s'appelle Alassane de Kalimo Consulting Group Alassane moom moo PNG au niveau de la Côte d'Ivoire euh, à donc euh, il va dire un petit mot le directeur de Kalimo Consulting Group